خير الأنام رسول doomam a jël ndam ñoom it jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñuy tubayu jaara ki doomam ak jëllam ñoo amit jërëjëf ñoo jiitu soxnay doomam jiitu ñuy tubayu jaara ki doomam ak jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxnay doomam jiitu ñuy tubayu kuy soxna jaara ku gën mboolem ku sol tubayu bamba ku gën fopp wax ji wér gi dem na dayo kuy soxna jaaraay ko gën mboolem ku sol tubéy ko gën fopp wax ji wér gi dem na dayo ya soxna jaara bégal saw ngañ ronaasal yaa jur ki jëm ci boroomam woote ñépp yu yow soxna jaara bégal yow saw ngañ ronaasal daa jur ki jëm ci boromam woote ñëpp yu xamal ne waa penku ak waa sowu ñëpp ngi moos ci suuf liggéey ka bég yow doo dee fi mooyu góor ak jigéen ak mag ak ndaw jag te yaa waral ñëpp jag baykat nga bay nga bayu jaaraama jaara ko am yaa ko sa dooma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gone yi jaaraama jaara ko yaa sa doomam gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gone jaaraama jaara am jaaraama yaa ku waral sa dooma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gone xamal ne waa penku ak waa sowu ñëpp ngi mos sëb liggéey ak beeg yow doo ko muy góor ak jigéen ak mag ak ndaw koo mi ngi jag te yaa waral ñëpp jog bay gën nga bay nga bayu yaa jàpp jàmm ku yiw ak jant teex ko mu sax nga bay ko nag ba mu ñor daagul jaajëni ku dib jullit war na lay ñaan ci waxtu ne loo bëgg yàlla nang ko am ku dib jullit war na lay ñaanal ci waxtu ne loo bëgg yàlla nanga ko am dagul nuy looy tey maa ngi lay nuyu nag moo mbaate jàmm ngam doo am lu dul jàmm yaa foog jàmm leble fayu yaa jàpp jàmm ku yiw ak cant teex ko mu saax nga bay ko nag ba mu ñor dagul nuy lorey alayhimu salaatu wa salaamu ba léegi nga may nu jannatu salaam allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima barke bi lilahi ma wax lilahi rasulilahi xayril anam